d'abord ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen sant ci wuy bi ngeen ñu wuy si démb bi président la république defee discours am à la nation sénégalais yëpp dégg ko am na mesure yu am solo yoo xam ne yi jël na ko euh, benn mesure bi tax ma ñëw mooy état d'urgence ndax état d'urgence dafay loo xam ne lii bu ñu ko jëlee euh, liberté yi ñu doon am pour di dem ak dikk dootuñu ko am te loolu nag naam du tey la fi masa am waaye peut-être ñu bari jotuñu woon ko dund comme ni ñu ko war dundee tey baax na tax ñu leeral ko euh, te expliquer ko nit ñi euh, donc tey bu huit heures jot ci ngoon ak fan yii di ñëw huit heures ba six heures dañuy tere nit ñi di dem di génn donc kenn ku ci nekk dañ lay wax nga toog sa kër loolu li ko waral jàpp naa ne ministre de la santé expliqué na ko bu du benn du ñaar feebar bi li koy joxe ñi koy vecteur yi ko yóbbu mooy nit ñi dem ak dikk loolu mooy premier disposition bi ñu jël donc su l'ensemble du territoire huit heures ci ngoon ba six heures ci suba kenn ku nekk ñu ngi lay invité nga nekk sa kër bu loolu weesoo it xam nañ ne transport demlante ak dikkalante également bokk na ci liy yóbbu euh, virus bi quelque part bokk na ci li koy toxal mu jógee ci benn bërëb dem ci beneen transport également interurbain comme ni ngeen ko xamee mooy jógee ci garage yi diggante diggan dëkk ak dëkk transport yooyu tere nañ ko c'est valable pour transport en commun c'est également valable pour ñu yore seen oto bopp là aussi bëgg naa mu ñëpp xam ko donc tey jóge ci dëkk ak dëkk à partir d'aujourd'hui danañ ko tere ba ci kanam pour que ñëpp ñu mën a toog ñu éviter déplacement yi pour ñu mën a ensemble xeex virus bi nga xam ne bii mi ngi ñuy bëgg a ñuy bëgg a sonal naturellement nag euh, lu mel noonu boo ko defee dana am ñoo xam ne ñii peut-être euh, du ñàkk ñu mën ci am euh, disposition bu leen mën a jëlal pour ñu mën a liggéey mais en attendant may ñëw ci loolu am na question yu ma journaliste yi posé bu ngeen seetloo daawuñu faral di defee nii conférence de presse li ko waral mooy ndaje mi ñuy bañ muy am moom la ñuy bañal également euh, ci lu mel nii ñëpp ñëw daje fi cinquante journalistes ak seeni euh, matériel seeni reporter ñi leen di jàppale kenn ku nekk di bëgg a question wala di buuxante moo tax ñu jël format bi nga koy jëlit waxoon nañ leen ne laata ñuy ñëw kenn ku nekk bën nga poser question jox ko numéro bu mu koy poser ñun ñëpp euh, sama chargé de communication dajale question yi bu ma ñëwee mu wax ma ko comme ça ñu tontu ci am nañ yaakaar ne ñi mu ci sélectionné du ñàkk mënut a jël yëpp ñi mu ci sélectionné peut-être bu ñu ko dégloo dana mën a leeral parce que leeral dong moo tax ñu ñëw benn bi am na ko ko ci posé euh, question mooy Samba Ardoba journaliste Dakar Actu euh, wax na ci yan mesure la entreprise yi jël Euh, loolu bu ñu yegsee ci dérogation yi peut-être entreprise yi mën nañ xool ndax danañ am éligibilité waaye li leen di ñaan mooy autant que faire se peut maanaam tant que mënu na nañ jéem a adapté seen liggéey ci contrainte yooyu maanaam fexe ba ñi leen di liggéeyal duñ génn 6 heures ba 20 heures sénégalais yi ban risque la ñuy am pour ku respecté wul lii euh, état d'urgence dafa am loi boo xam ne bii mi ngi ci réew mi depuis 1969 loi bi changé wul disposition loi bi la ñuy respecté ku respecté wul état d'urgence loo benn dérogation bu justifié nga war a génn mën nañ laa tëj diggante ñaari weer ba ñaari at mën na laa amande diggante ñeenti junni ba téeméeri junni waaye benn ci amande yi rek lañ la mën a jël du la ci booleel ñaari donc loolu mooy li nga xam ne lii moom la loi bi def ci article 21. transport bi nga xam ne bii dafay nekk diggante dëkk ak dëkk moom sax interrégional la wax mais man danaa gën a préciser sax du yegg sax région bi maanaam diggante euh, communauté urbaine ak beneen dañ koy dakkal donc fi mu toll nii te loolu du uniquement transport en commun la concerné même borom oto yi boo amul benn justificatif benn dérogation bu la jox permettre la nga jógee ci dëkk bi dem ci beneen dëkk et ceci à partir d'aujourd'hui à vingt heures donc loolu yaakaar naa ne leer na am na ku ma posé question Gallo Daouda euh, benn question d'abord Khalifa Ndiaye wax euh, Euh, mais yaakaar naa ne benn question bi ci man la bi ji des ci ministre des transports ñaata gendarme ak alkaati li ma ko mën a wax rek mooy pour ñu respecter euh, état d'urgence bi gendarme yi ñoo ciy liggéey ak policiers yi ak militaire donc def nañ réunion léegi ak ñoom ba kenn ku nekk mi ngi jël ses dispositions pour que à partir de tey ñu gis leen sur le terrain pour que ñëpp mën a respecter disposition boobu euh, beneen bi question bi Gallo Daouda Sall moo ko posé wax na ci julli aljuma gi ndax dana am ci yeneen région yi euh, bon foofu aussi li ma ciy wax rek mooy bi ñu tàmbalee médecin yi taxaw wax ne nañ moytu ndaje yi te kenn ku ne xam ne ne julli aussi ay ndaje la euh, defuñ ko pour jéem a tere julli wala pour leneen nañ moytu ndaje yi ak fu muntu doon ci sport ci plage yi sport ci terrain yi donc muy disposition yu jël waaye gannaaw religion dafa sensible dañoo jàppoon ci suñu démarche ne duñ ci def lenn lu ñu waxtaanut ak kilifa yi diine yi man ci sama jëm bopp am na fu ma dem am na ñu ma wax ak ñoom ñëpp ba ñu mànkoo ci kenn ku ne xamoon na ne mois de mars bi amoon na ay événement yu am solo événement religieux parce que ci la ci la euh, nu mu amoon ci la euh, daaka bi am euh, ci la kazu rajab am également ci la appel de Layène am muy événement yu am solo tasaaroo ci dëkk bi kenn ku ne xam ne taalibe yi dañuy jógee fu ne ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu nangul ñu ko ne malgré que defoon nañ ko seen agenda ñoom comprendre nañ donc donc démarche boobu lañ jël également pour prières yi waxul ne dañuy tëj euh, jumaa yëpp ci Sénégal dañ leen invité ne leen lii buñ ko defee lii mooy conséquence yi parce que bu ngeen seetloo feebar bi ni muy yokkoo dèjà mën na jóge ci benn ndaje rek daal di tasaaro ni muy yokkoo ci àdduna bi dafa xaw a doy dafa yéeme kon démarche boobu lañ jëloon aljuma bi passé bi ñu jëlee waxtaan ak imaam yi waxtaan ak euh, euh, yenn kilifa yi diine yi wax dëgg yàlla euh, ñun jàpp na ne aljuma bi réussite la parce que pour la première fois nga jël une opération boo xam ne bii soxlawul sax nit ñi di déplacer juste par téléphone sur ñeenti junni ak juróomi téeméer yu juma ñeent junni yi ak lu topp julliwuñu woon bés ba donc daanaka buñ jëlee téeméer bu nekk ci juma juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent respecté nañ disposition bi démarche boobu la ñuy utiliser waat. fii ak aljuma te am nañ yaakaar ne ñëpp dinañ ci adhéré parce que ñëpp gis nañu njariñ bi parce que de plus en plus chaque jour bu ministre la santé génnee wax ne nangam yokk na nit ñi di jël conscience que affaire bi soriwu te loolu am na solo bu njëkk koy tàmbali peut-être ñaari région la woon ñett léegi yaakaar naa ne ñu ngi ci juróom-benn région donc loolu am na solo nit ñi comprendre ko yaakaar naa ne dañ comprendre donc aljuma bii di aussi am nañ yaakaar ne nit ñi danañ mën a comprendre pour que Euh, ñun ñëpp ñu mën a aar ñun liñ ci dugal du dara lu mooy aar Sénégalais yi te gëm naa yaakaar ne kilifa yi diine yi wala peut-être imaam yi nga xam ne ñoo jiite nit ñi amuñ ci beneen objectif ñoom it lu mooy aar ñi nga xam ne ñooy seen taalibe wala ñoo ànd ak ñoom euh, ci wàllu également euh, déro dérogation am nañu laaj yan service ñooy am dérogation moo wax ne arrêté bi nga xam ne bii man maa koy jël jël naa ko ba pare sax d'ailleurs bi président signé décret état d'urgence dañu ne ci biir réew mi ci gox bu ne bés bu yàlla sàkk de vingt heures à six heures maytu nit ñi ñuy circuler ci gox bu ne waaye ñu teg ci ne diggante ñaari gox yi également moom duñ sax permettre ci bés bi nit ñi di circuler donc kenn ku nekk nekkal fa nga nekk mën ngaa dox ci biir dëkk boobu nga nekk de 6 du matin ba 20 bu weesuloo permettre luñ la ko ñu ne arrêté bi am na ñoo xam ne ñii bokkuñu ci mooy institut président institution yi institution yi ci Sénégal xam ngeen leen seen président bokkuñu ci les ministre ak secrétaires d'État les députés ambassadeurs yi gouverneur préfet ak sous-préfet ak seeni adjoint magistrats et greffiers personnel de santé euh, personnel de défense et de sécurité personnel de santé donc ñooñu ci arrêté bi ñoom bokkuñ ci tere bi waaye nag euh, arrêté bi aussi permettre na ministre de l'intérieur gouverneur wala préfet bu fekkente ne soxla na ko maanaam pour wàllu liggéey wala pour ku feebar wala ku am urgence euh, ñu permettre la souplesse boobu ñoom ñu mën la may këyit nga mën a bouger ci soit ci biir dëkk bi wala nga génn sa dëkk dem dem beneen dëkk donc loolu moo doon euh, solo si euh, ndaje bi man ma war ci intervenir xanaa ma bàyyi suma suma naataangool euh, ministre de transport mu ñëw complété par rapport ak question yu ñu ko posé jërë ngeen def